yaa himmati seyxi uxduri lana bi hada almaadari waltaatafi bi nadratin tartilina bi safri assalaamu aleykum wa wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan fii ci almubasira ñu ngi leen di fii ci suy suñu émission bi ñu tuddee faju mag ñi tey nag ñu indi leen sanjang ak daqaar ak euh, li ñu tuddee mantamaare ak keng lan lay jëriñ ak lan la ci mag ji daan faj mag ñi danañ ci di faj ndoxu siti dinañ ci fajit góor gu néew kettan bu fekkente ne yow yaa ngi may déglu lenn ci feebare jot la amoon lenn loo xamante ni wala benn pexe moo mën a def jëlal ma ñaari reenu euh, sanjan boole kook ñaari reenu daqaar ak ñaari reeru keng ak ñaari reen ci mantamaari bu boobaa nag bu la neexee nga baxal ko def ci sa butéel di naan bu la neexee it nga xooj ko di ko naan bu fekkente ne ndoxum sitti la lépp dina dañ ci kàttanu yàlla bu fekkee ne néew kàttan la dina dañ insha allah loolu mooy li nga xamante ni moom lañ leen doon indil fii سنو جتايو فجمتني مطني دلن دوخ جهد جيه إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب